كلي بحمد وشكر إلى ولي لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا إلى نبي رسول جاءنا بهدى مسهتدى بكتاب جاء به فهدى أبقاتها يا بلا خس ولا كدر من الخديم الذي ينهوه ملتحدا لآله القر والأصحاب خاتبة مني سلام يديم الأمن والرخداء يا سيدي يا رسول الله يا أملي صلى عليك الذي قص الذي مردا يا منتقى يا إمام المرسلين معا alayka taslimu man safa bika alxalada salla alayka bi taslimin bila adadin man lam yakun qattu mawludan walam yalida salla wa sallama baaqin la sharika lahu alayka bil aali ya man sahsahal fanada salla wa sallama baaqin laa nafaada lahu alayka bis sahbi ya man qarraba rrashada ahlal madinati minni sarmadan lakum abqa salaamin yutiibul qalba wal jasada laasiltum addahra fi safwin wa tawsiatin yakfikum allahu fi daarayni man anada fustum bi kawni bni abdillahi jaarakum wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada salla alayhi alladi yanfi l ida abadan ila siwa ma naha huddahra multahada bismillahi arrahmani irrahim qaala alfaqiru ahmadu almakiyu man cheikhuhu muhammadu almakiyu qaala alfaqiru ahmadu almakiyu man cheikhuhu muhammadu almakiyu alhamdulillahi ma ndokkeel bàkk muri ci daam yaxaji woon fa makka Cheikh Mountakha yéenay Serigne Touba ji moo tax mu xëntewoo bari alxaaji yebal nga ay kuréel ñu dem ba Tayba ay yooni yoon ziyaara sibti Cheyba ñi nga yebal ca xaj ga ji dam tashi dem nañ ci jàmm dellusiwaat nañu tase sëñ na moom Cheikh Moustapha Bachiru Cheikh Fatma Mbacke maa ngi leen di teeru Cheikh Muntaxaam Cheikh Moustapha Fadilu ziyaara nañ jàmbaar ju am tafdilu cheikh saalihum cheikh fàllu cheikh Chouaïbou xasiida yaa ko tàggaleeki aybu ajal cheikh bamba maa koy seeru ci ndigalal cheikh muntaxa bachiru ilayka yaa xayral bariyati salaam lañ doon nuyoo yonen ba min baabi salaam xasiida yaa ngay jolli naar yay waaru xam nañ ne cheikh bambaay donoy muxtaaru cheikh moustapha am sëñ cerno maa koy joobe lil minatil alaa di way ba woobe sëñ saam bu sëñ Fallou Bousso Thierno yal na nu Cheikh Bamba gërëmte te sëriñ Matar sekk ma leen di jiite Cheikh Afe Ñang jëwriñ ju yàgg yeete soxna Khadija Mbay nee naa la askey ña bàyyi ko fa soxna Baali laay way soxna Adja Muslimatun ak soxna May ak soxna maam Mariam ku nekk ñëw na tey doomi sëriñ Cheikh Astu Fall maam Faati sëtub sëriñ Bachiru Zil Ayaati soxna Adja Ndeye Mbacke soxna jaara seen maama tax ba réew mi fonk daara Abdoul Aziz marhaba waa naam mbay Cheikh Muntaxa murit bi moo yeyoo way Cheikh taxa dundal nga yéeney Bamba fa kër rasulullahi ak yonen ba jëf ngay jaloore am nga ay manoore te am nga mboor mu kenn mërta jëf ngay jaloore am nga ay manoore te am nga mboor mu kenn wërta réere nga daam te yàquloo ndonoom lii te yeesalaan nga yoon wi jël nga ndam li yàlla nanga fi yàgg yow la réew mi taamu xajoo nga leen te yaa fi donnu daamu yàlla nanga fi yàgg yow la réew mi taamu xajoo nga leen te yaa fi donnu daamu safan wi yàlla na yokk wér gi yokk say ndam di wéy ma di la way di bakk ahmadou ba tàllal na lay bagaanam di xaari may nangul ko ak dagaanam allahuma salli ala sayidina muhammadin sallim moom dañ ko faa jële woon ca barab ba tafsirul jalaale ni bu yees la buñ mool mool bu yees moom dañ ciy fas rek li nga yéene ci xam-xam yéene ko jullit ñi suñu boroom defal la ci lu kawe njort waaw lii la yoo xam ne waaw waaw nañ ci yéene li ngeen yéene jullit yi ciy ñaan waaw lépp ñu borom yeggale ko dëppoo gi yi ma doon jëfandikoo léegi de gi ma lii la dë dëppoo taw fi xam na ci waaw kay waaw tubarkal waaw yàlla defal leen ak waaw sax léegi lépp nag ak cant bu xam ne waaw kay xam naa ne ak cant rek mu yu fees xol yoo xam ne làmmiñ yi mënu koo tudd mm-hmm. gis nañ ci yoon wi loo xam ne xam nañ ne seeni ñaan ànd naa ñun zahiran ak batinan mm-hmm. ndax fam mu gënoon a méttee de suñu borom seral na ko ci ñun lool oh. ndax minan metti na lool mm-hmm. waaye nañ fa nekkee ren yaakaar naa ne ñi ñu jiitu woon amuñu ko woon eh, ñu baree bari day ah, metti woon na ci ñoom waaye ñun de daanaka na la woon ci ñun fañ daloon jege woon na jamra ba lool muy VIP boo xam ne xam nañ ne say ñaan moo nu ko may eh, ba la lépp joxe nañ ko di ñaan suñu borom ah ci say biir ñaan mu dugg ci suñ borom nangul nu ko ci lépp li nga xam ne yéene nga ko eh, suñ borom defal la ci lu kawe njort yéen yàgg fi lool. li ñu nekk ci xol yi moom mu ne su koo tudd waaw ñu ñaan rek am bi ñuy dem da ñoo waxoon nañu suñu xaafiye mii dénk naa leen ko yéen ñëpp nag ku ne def na ci eh, sa kem kàttan waaye suñ sàmm mi moom yitteem jëpp da ko bàyyi woon féete féete ci moom waaw waaw wax dëgg yàlla na ci taxawaay bu rafet rafet boo xam ne faaw ñu seetal la ko waaw waaw ndeysaan ndeysaan yéene woon daal amee na noona waaw lañ ko yéene waaw nañ ko na noona waaw ci sa ci sa barke sa ñaan sam-sam la nday umul la kurus la ah, macha allah ah. waaw <laughs> moom tawfeex la lépp lépp ci tawfeex sëriñ bi rek la mu baaxal na ko tubarkalla tubarkalla soññ nga ñu lool nga suñu yitte joxoñ nga ñu fañ war jaar kon nag ñu ngi ñaan suñu borom guddal safan wéral sa yaram yeggale sa naal yëpp yëpp da nga yeggale ko sa bopp te ñun ñëpp it yàlla nañu ko ànd ak yow kenn ku nekk ca la ko ca war ci barke sëriñ bi waaw ci kaw ci kaw jaay googu xam ne waxtu nekk yaa ngi ciy soññi taalibe yi sëñ Afi mii da nga dénkoon mbooloo mi te mbokk yëpp séeréel sëñ Saam mii taxawaay bi mu ci am lii nag maa toppoon ci ñoom yor yor seen ak seetaan ak seen der léegi nag góor góorgóorlu naa li may nekk si ndonga jàng naa fukki kaamil ak juróom ndax ñaari fan yu nekk wàcc naa fa kaamil daf koy addee Serigne tubaa ak yaana ñaanal la sunu borom cër yam daan jox Serigne tubaa Sëriñ Tuubaa séddale ci cër ba gën a dund lii itam ba may dem dama fi doon roy rek ndongo luy roy damaa dem ci diggante daaray kaamil ak jullikaay yoon it ba mooy ànd fa lu bii ba demee ca kanam barab yonente bi alayhi salaatu wa salaam falaa ko suufas ji suufas Madina ba ma fay itam ma ma ca suufas Madina ma xalaat nag fi mu ne nii sang ko ba mu set ma parfum ko dem euh, yalwaan ka ca barab ba ne ko may ma dugal ko def ko fa. <laughs> maa ngi sant yàlla bu baax di am mbégte mu rëy rëy ci mbooloo mu tedd mi nga xam ni sun borom dogal na atum ren ji nga boole woon ko nga boole woon ma ak ñoom ma ànd ak ñoom it li leen war lépp ñu def ko fa ci rafetal ndax euh, gis naa ni am nañ ci man cofeel am ci man yërmande. am ci man ak bëgg ba tax na liggéey bi ñoom doon nañ ko jàppee lu diis ci man waaye man dama doon gis ne lu oyof toy la ndax lépp lu ma def rek day rëy ci ñoom ngir boole gi nga ma booleeg ñoom maa ngi am mbégte ci ñoom bu baax di ñaan suñu borom mu nangul leen jëf ji nga xam ne doon demoon nañ ci sa ndigal doon doon ko fa defe ñu yàgg koo def ci sab taxawaay yàgg koo ànd ak yow yàgg koo ànd ak mépp mbooloo moo xam ni tànn nga leen di jottaliwaat seenu cant cant nañ cant goo xam ne ñoom xañ na euh, lott nañ ci euh, wax ko ci seeni làmmiñ waaye barab bu ñu toll rek ñu ngi lay fàttaliku di la teewlu di la sant bu baax a baax a baax a baax waaw sëñ Moustapha sëñ Moustapha am sëñ Thierno miit moom it am na fa taxawaay bu mag a mag boo xam ni ràññikoon na ci mbooloo mi lool ak ak ak ñoom ñëpp waaw waaw waaw kon kon kon kon noo ngi doolee sant bu baax a baax baax suñu tant bi noonu bëgg wax dañ koy seeral borom liggéey bi rek mu ngi xam ne lépp day jóge ci moom dellu ci moom noo ngi seeral suñu jant bu baax a baax ci taw fa juñu jooy yu nu am ci yéen waaw <laughs> fa waaw cant nañ cant gu rëy rëy da nga koy seede cant gu rëy jooju mënuñ mënuñ am ci biir ci biir liggéey ci biir liggéey bi sant na cant gu rëy rëy rëy goo xam ne wutaluñ ko tey dañ ko fet def dafa fas yéene def ak laxasaay rek di noo ngi fi incha allah ak fet ak laxasaay rek lañ ko def lañ ko fet fet lee ko laxasaay gi rek incha jërë ngeen jëf waaw kay waaw kay waaw kay noonu la baax <laughs> waaw kay waaw kay tubarkal la noonu la baaxee noonu <laughs> moom moom sëñ moom moom lépp sëñ bi dañ <laughs> maanaam sëñ moom moom moom moom moom raw na xel raw na lépp sëñ bi moom raw na lépp moom moom si la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy saa di ko sàmm moom sëñ moom raw na yooyu waaye nag saa si rek saa si rek. <laughs> saa su baax si su nga xam ne moom gën na lépp saa soosu dana jéem di di ko dawa di ko di ko jéem a sàmm rek <laughs> moo waraloon sax ñu ñu sëñ saa moom mu dem a moom <laughs> loolu lépp saa du du bàyyi rek la moom. sëñ sëñ Moussa Alima bi daf ko masawoo ba mu ñëw mu wan ko aw fegg bu muy doog bind. Mm-hmm. ne ko gis nga ko mu ne ko waaw mu denc ko ne ko demal sotti ko léegi indil ma. nee ba mu demee mu daal di jàpp ba sel jublu penku lu ne ci xelam rek mu bind mu ñu dindi ko mu muy benn fekk ba mu koy wax Cheikh Ibra néew fa woon waaye bi mu ñëwee delsee dafa fekk Cheikh Ibra hmm. waaye Cheikh Ibra ne ko mooy yow ndongo li gën a muus na dee fi sottee loo gisut mu ne ko yow gën a xarale na dee fi nettalee loo fekkewut <laughs> waaye gannaaw gannaaw bi nag suñu soñ bu daf koo laaj ne ko ndax kala def kala joxoon mbind moom muus sa gis ne la sotti ko nga defee ko nam ko bëggee ndax yaa ngi koy manati ba tey mu ne ko moom ma ma ko def la woon su ma ko def la waatee ma def ko waaye ci biir liggéey bi ngeen ñu doon liggéeyloo yëg nañ ci feex ak yitte joo xam ne xam nañ ne du ñun waaw yow la sëñ Tuubaa nangul ba lépp loo sant ni rek dana ko dana dana dana ko man dana ko def waaw loolu noonu rek la waaw noonu rek la sëñ bay jaxat dana dana sëñ bi loo sant nit bu defee gis ab kemam bu ko def Eh, bu gis ab bu deful gis ab kemam bu ko def te moonakat bu defee it ànd koo ki kemam waaw ah, loolu loolu la loolu dëgg la am nga ay junni junni yu la ko mënal waaw moo tax ñu ñu waaw <laughs> na li bi gën